kon mbokk yi ñu siifre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ki ñu jàkkaar lool wala ki ñu leen fas yéenee dégtal defe naa ne xam ngeen ko ci Sénégal du ma ne sax làmb mais Sénégal ci boppam xam ngeen ko muy Alaaji Ibu Njaay ñoxo bàyyi di suñu papa di suñu njaay ñu ñaanal yàlla wér-gi-yaram gudd fan barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla defal ko defal ko bépp doomu aadama te nag ñu fas yéene waxtaan ak moom rek ci làmb ji situation yi muy dund jamono jii te moom defe naa ne ëpp ko ci xam-xam yaakaar naa du yomb papa maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, maa ngi lay fay di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm ak fan wu gudd ànd ak wërsëg gu bari musal ñu ci mbas mi nag yàlla ñu ci senegal gépp mucc ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam amin papa heure bi daaw lañ mujjoon a bëree mois de mars ñëwaat na presque mu mat un kon lamb ji tëj li ko waral mooy corona te yéen ku ne xam leen ci lamb ak li ngeen ci daan suye comme rôle microcentral ak di def def sax médiation ci yenn diggante yi boobaak tey papa noo dundee mbir mi. Eh, xanaa mu metti lool nag waaye la béy daan dunde ba sax sikkin bu ko bàyyiwul mën na caa jàpp ba dee eh, wopp gi dugg ci àdduna jaamu yàlla la comme ñun ni ni ñu yàlla sàkke ñuy jaamu yàlla noonu la feebar bi nekkee jaamu yàlla eh, ñuy ñaan yàlla nag yal na ko yàlla dàq mu dem ba ñu dellu say ak suñuy activité waaye euh, metti gi metti ci ñëpp noonu la méttee ci ñun rawatina ñun ñi nga xam ne euh, doomu aadama yu bare bare bare bare bu ñu dajeeg ñun ci làmb ji lépp lu war ci ñun rek dinañ jëkkati seen alal def ko ci ñun kon loolu ko ñàkk ku ne ñàkk nga lu bari waaye jël euh, gëm yàlla li am am solo wóolu yàllaa ko solo te ñun wóolu nañ yàlla. Mm. solo loolu leer na waaye bi loolu amee nag ñu toog ay weer ba jëm ci atum yàlla lamba amul dara xewul ñu toogaat ba benn moment ñu ne làmb ji day ubbi premier mars mais su ubbee huis clos lañ koy bëree lambi huis clos ndaw defe naa ne avant indépendance ba tey macha allah yàlla na fan yi gën a gudd yaa ngi setaan lamb di ko dund lambi huis clos ndax mas nga koo fekkee lambi huis clos ndax neex na. xam nga làmb dafay sport bu ànd ak culture bu ñu bëggee nag pratique sport bi rek bàyyi culture bi làmb day daal di soof làmb mënul nekk huis clos parce que lamb bu fekkee ne huis clos lay doon tëggkat baa fay ne woykat yi ak ak micro central xañ na mais làmb dafay ànd ak ambiance tous bi am na ñoo xam ne moom rek moo leen andi woy am na ñoo xam ne moom rek moo leen andi bakk yi am na ñoo xam ne moom rek moo leen andi bëre bi soog a ñëw kon bu fekkee nag dañoo jël espoir bi teg bëgg a culture bi lamb day dal di soof lamb dafay aar boo xam euh, euh, boo xam ne sport culture la moo tax lamb huis clos man day mësuma koo fekke mësuma koo gis parce que lamb ambiance bi mooy amateur yi man li ma waxoon mooy la ma waxtaanee woon a Keba Kanté parce que ji nga boo dee may mayal ku la neex mais boo dee dénk dénkal ki nga wóolu lamb comme que lii balaa la bu soog a ñëw pourtant ñoom ñu ngi ragal rassemblement bi te bés bu ne rassemblement am bu 6 heures jotee boo gisee doomu aadama yi ni ñuy mel ci carré yi ni ñuy jëkkante woo jëkkante ci carré yi tabante kenn ku ci nekk tab sa morom te ñu bañ rassemblement loolu rassemblement la waaye lamb bu fekkee ne tey cinq mille personnes ñoo war a dugg ci lamba ji ñu deux mille cinq cent personnes ñu dek teg gel ci buntu lamba ji kenn ku ci nekk masque yi rek xanaa xamoo ne masque rek mën na nekk euh, sponsor bu fekkee ne ñëpp mar masque orange lañ takk kon orange day ci daal di am sponsor bu fekkee ne ñëpp masque tigo tigo lañ takk tigo day ci def sponsor am wala promo wala keneen ak keneen keneen ak keneen kon yaakaar naa ne am na leneen lu ñu war a mën a indi ci lamba ji lu dul ay huis clos huis clos mooy xanaa li ñuy def Amérique rek dugal doomu aadama yi ci lu mel ni gunu rek ñuy dóorante kurpañ ba kenn ku nekk daanu waaw mais loolu loolu ban kef ka la am làmb aada ak cosaan mag ñi boo gisee wërsëg wi génn ci làmb xam nga lu ko waral mag ak njàmbaar rek lañ ko tegoon tund wi maa fi manoon musuma sama loxo mësta laal suuf musuma daanu loolu la mag ñi daan bàkkoo bu ñu demee nag ba teraanga génn ci nañu seet nag ne làmb dafa intéressé sénégalais yëpp muy góor ak jigéen mag ak ndaw làmb nañ ko nañ ko mënta ne huis clos làmb nañ ko def distance distance su un mètre cinquante un mètre cinquante làmb ji am ay nit bu ko defee ñi ci des te bëgg làmb mënuñu ko seetaan ñu kar ko télévision yi loolu la mais lamb wër te mën a nekk huis clos voilà man day loolu laa gis. am na solo waaw loolu am na si droit def naa ku nekk ak sa gis-gis li mu wax defe naa ne war na mën a nekk solution sans départ waaye fi ñu ñëw fi ñu ñëw ak yow tey nag léegi mooy ku ni Gaston Mbengue toog an ay at gisatuñ ko mu retourné waat ci lamb bi mu dikkee nag indi ay combat capital Eumeu Sène Lac de Guiers Bombardier Balla Gaye Diène Kaïré Modou Anta ak yeneen i combat loolu retour boobu noo ko gisee. xam nga Souley ak sama waay la ba may ànd moom benn communicateur traditionnel àndul moom man ak moom ak Thierno Ndiaye ba ñu ànd Gaston moom moo may sama ñaareel bële euh, l'an 2000 ba ñu ngi ci 2021 dama ko liggéeyal ba mu yëkkati soxna may ma wàññi million jox ma loolu def naa ko sama diggante ak moom gis na rajo bu ma masa ne nag ma fa yóbbu Gaston ma yóbbu Envie FM Gaston ma yóbbu Océan FM Gaston ma yóbbu Sénégal FM FM Sénégal gii ma nekk ca Bécaye maa fa yóbbu sama bopp foofu rek la ma Gaston yóbbuwul mais rajo bu ma mas a nekk Gaston fa la ma yóbbu ñu bari bañ nañ ma ñu bari mere nañ ma ñu bari am nañu xeen sama diggante ñoom du kenn ku dul Gaston parce que dañ naan ñoxoon ni mu bëggee Gaston bëggewu ko kenn man nag damay doomu aadama bu am fayda fi ma doom aadama bi yem fi laa koy yem wax naa ko barki dem rek la ñu te téléphone ma ne ko da am beneen géwél euh, léegi euh, ñeneen a lay waxal waaye du man te kaay ma waxal la do heure boo ko waxee nit boo fa waxee leneen lu jaaduwul wala luñ la santul yaa tooñ parce que doomu aadama bu la yàlla bindee dafay doole sam xel boole koog sa wërsëg muy marchandise liggéey gañeeg liggéey perte ne doomu aadama bi liggéey gañe nag mooy ki xam boppam mooy li tubaab wax ne la clé de la connaissance d'autrui et la connaissance de soi-même doomu aadama day xam fi mu bok xam li ko war Gaston nag lii mu indiwaat xañ na moom am na ci xam man ñoko ko bàyyi day aw ma ci xam-xam te bu gisoon ku mel ni man ñu toog waxtaan dinaa ko ne euh, Gaston xam nga lan moo am solo lamb ji na nekk distance bañ a nekk wii clos bu nekkee huis clos ku fay ne koy waxal jinne yi wala wala wala njanaaw yi xanaa kon eh, eh, eh, tan yi rek ñooy seetaan làmb ji ah loolu day xañ na idée Gaston la man na ko. est-ce que coronavirus bi waralu ko tamit parce que Gaston xam bu sañoon public bi seetaan si laa foog mais xëy na corona bi moo ñu forcé ba daje bi la lay. corona bi lu mu ñu forcé forcé forcé ni mu ñu forcé ci biir kaar moo ko ëpp solo kaar yi ba nag ni nit ñaa ngi tàncaloo dajaloo bi ñuy bañ ni ñaa ngi dajaloo nit ñaa ngi dem ci dëj yi nit ñaa ngi dem ci ngénte yi. est que loolu yoon la ngi ceeta déedéet mais dajaloo bi ñuy bañ. ñi ngi nit ñaa ngi dajaloo waaye bu fekkee ne làmb la ñu ko defee distance kenn ku nekk un mètre cinquante boole ko raxasoo jel takk sa masque mën ngaa seetaan làmb ji ba làmb ji jeex te doo problème. wala ñu ñàkku ji boog wala. ah ah ñàkku moom euh, ñëpp dinañ ko def ah man day fas naa yéene ñàkku ji man ña ko bàyyi waaw parce que fu ma gisee El Hadj Mansour Mbaye ñàkku te il le président de tous les communicateurs traditionnels man am naa sañ dem ñàkku ji ñàkku ji nag aar sa bopp la. keneen ku ko jëlee leneen nang wala nga def ca wala nga xalaat ca leneen wala nga def ca leneen yàgg yàlla la parce que ku éliminer doomu aadama bi yàlla dina la éliminer ëllëg waaw moo tax ñàkk yi bu tiital doom aadama ñàkk tiital doomu aadama mooy mënu ñoo wàññi li yàlla sàq bés bu ne yàlla rey ay doomu aadama mais bés bu ne ay doomu aadama juddu nan la ku wóolu yàlla bi gëm yàlla amee ba pare wóolu yàlla dafa am solo lii nga xam ne tey mooy vaccin yi ñu ne ku ko pik ku ko xañ na yàlla mën na la cee musal nañ ko pikiru seet ba xam kuñ ci kuñ ci sacrifié nag yàq yàlla nga sacrifié parce que ay mbindaafu nu yàlla lañu yàllaa ñu bind heure bi ma heure bi ma yàlla soxlaa rek la may jël heure bi la la soxlaa rek la lay jël kon kenn mënta rater sa heure heure yàlla moom fixé la rek. am na solo mais léegi dama la bëgg a loo xam ne foofu la ñuy jeexale euh, Eumeu Sène ak Lac de Guiers bëri ñaari yoon. war a bëriwaat troisième combat ma gis ne combat bi dafa commencé am enjeu ci seen diggante ñaari mbër yooyu defe naa te xam ngaleen bu baax a baax. dama ne la. lamb ji ku ci dàq bëre. Lac de Guiers amul ci lamb ji. waay maa la ko wax man ñoo ko bàyyi. foo teg loolu. lu waay def mu dindi ko te la muy def kenn du ko dindi. baaw xoolal parmi tous les champions yi fi ne. moom rek nga fi mën a limal benn defet wala ñaar. keneen koo ci dégg daan na lu mat juróomi yoon. te kenn mësu ko cee kenn mësu ko cee jaaxaanloo ku ci nekk da nga naan quatre appuis trois appuis rek la jinga nga bi du bokk combat bu jëkk ba. lu tax lu leen di wutale. dafay combat boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ko bëgg kenn ku ci nekk da ngaa xiib sa morom tey li ci Lac de laa xam Eumeu Sène dafa jóge ci defet muy defet bu metti kon yaakaar naa ne lamb fu nooy moo gënoon lamb Lac de da nga bëgg a wax ne kon ëmb li mu jël war kon koo jël. la ilaha xam nga feebar yëpp cité ci gën a garaaw. siti du wér. siti day tane rek. mbaa mu gëm. cité day ko gis mu am cité cité ba day nelaw rek. da koy da koy da koy wutal loo xam ne day nelaw waaye du wér. la de guerre nag la. ci ñëpp nag. mais pourtant am na ñoom xam dañ ne Eumeu Sène daa mën a bëree lool. Eumeu seen lu mu mën a mën a mën a mën a mën a bëre dàqu la bëre Lac de Guiers parce que Lac de Guiers loo def mu dindi ko dama ne la Mama Ba yal na ko yàlla yërëm dafa téye ci loxo Lac de Guiers ànd ak moom ba ca place su Aziz Ndiaye ca Pikine tali bu mag fekk moom a toog mu ne ma euh, grand euh, père ña ko ma ne ko ah mu ne ma kii laa bëgg def champion dama bëgg mu nekk roi des arènes dimbali ma ngir yàlla jàppale ko ca laa jàppee. Lac de Guiers ba nëga ni Eumeu Sène Samba Xoyaan ay maamam maa ko tuddee Samba Xoyaan bi maa ko tuddee sëtu Samba Xoyaan bi ba pare nag maa seeg baayam Assane ñu fowandoo màggandoo yarandoo maa ngénte Eumeu mi kon lu ne ci moom depuis bas âge ba tey xam naa ko. kon daal sens si Eumeu Sène gisoo ko ci combat bi. combat boo xam ne euh, xam nga Eumeu Sène lu muy andi di ko taxaw maa la daanoon observation sans déclencher. loolu lay indi maa la daanoon damay dikk rek taxaw Lac de Guiers bu bëggee daan Eumeu Sène il faut mu imposer ko def li Balla Gaye di def dox ci kawam jam ko gauche jam ko droite Eumeu Sène xeex ñu jàppante loolu mooy làmb ji. dóor mu daanu mën na fa mën naa am hmm. bu ñu xeexee xeexu mbedd dóor mu daanu am mën na ci am ci ñaari côté yëpp nag ku ne mën ngaa dóor sa morom mu daanu parce que Eumeu Sène dafa yor crochet gauche boo xam ne heure bu ne yunn nga wàcc seytaan mu yéeg ci kaw loolu lay naxee Balla Gaye bés bu ne am na ci benn interview bu ma wax ne Balla Gaye bokkul ak Modou Lo Modou day ragal Balla gay ba daan ko Modou Lo da kii euh, euh, Eumeu Sène day ragal day ragal Balla Gaye ba daan ko mais ji bu ñu daje woon di xeex nga xam ne bala Gaye leen man ñoom ñëpp maa la ko wax wax naa ko ci benn télévision. bu ñu daje woon ñoom di xeex ak moom ak Balla. dama ci Balla saaga doo fayu ñoom ñëpp tout le monde. mbër mu ci takk ngemb ku ci Balla gay dajel bula la saaga doo fayu ah. man nga koo nax nag ci ci làmb man nga koo nax ci lamba Eumeu Sène ñaari yoon yi mu dan Balla Gaye yëpp bu ci nekk da koy ragal ba daan ko danaan yun Balla Gaye di di toog ci ay tànkam muy yëg ak crochet Balla gay di fayu mu daw jàpp ko loolu lay bëree seeg moom ba ci Bombardier mi bu ko Balla saaga ci mbedd du fay dama ne la bi gën a garaaw a ngi noonu nag laa ilaha illallah Euh, booy bambara waxoon na ko fi ne Balla gay kenn mënu ko ci làmb ji ñu di ko critiquer mais ji nga Balla gay ma bëre woon ak Bombardier bu njëkk ba do Balla gay mii Balla gay bu njëkk ba keroog ba muy bëreeg Bombardier man biir na ma biir yàlla maa yor micro central xam naa ne kii andiwul genn wàllam ci làmb ji benn il malaat malade ñaareel ba estafam tere na ko bul jël combat bi ñetteel ba amul doole. mais combat bii xool naa ko xam naa ne entraîné na te it ñoom Aziz Ndiaye nañ ci jàpp parce que di nga sur le plan mystique sëriñu làmb amul sëriñu entraînement entraînement yàlla daf koy fay nikki du ba fajar mu takk ay dallam di wuti doole ngoon jot mu takk ay dallam di wuti doole dem ba am bés yàlla di ko xañ coono ba mu daan am am bés bu ne nga ji ci làmb ji ku yenu ay layu yenu ay laytan ñu sotti la tungóom la nga sotti ko ay saafara indi cent quatre-vingt-dix mille bouteilles ñu boole la ak bouteilles yi yenu ba ci kaw dóor ci suuf booy xoolee autoroute bi lépp ay bouteilles la mbëri ko fi sànni parce que boo dee ñibbi bouteilles yi dañ lay lëjal <laughs> bouteilles bouteilles yëpp ngay sànni ah mi ngi noonu mi ngi noonu moo tax ñaari revanche yooyu bu ci nekk eh, eh, eh, maari day tàll la parce que bu ëmb seen naagu mukk yaakaar ne moo man Lac de Guiers bu Bombardier naagu mukk yaakaar ne moo man Balla gay man day fu ci nekk cinquante cinquante laa teg waaye am naa favori boo xam ne nag euh, xam naa ne lii bu fa euh, Lac de Guiers Lac de Guiers àggee euh, Eumeu Sène du bëre am na foo xam ne bu fa Eumeu Sène àggee Lac de Guiers Lac de mais bokkul nag digganteem diggante Bombardier ak ki nga xam ne mooy Balla xam nga Balla Bombardier lu muy indi si maa la daanoon observation sans déclencher taxaw di lewtoo ji bu bés ba Balla dina bu àdduna par day dox ci kaw Bombardier lii maa ko lu kenn mësuloo dégg gis ci làmb nag. day dox ci day dox ci kawam ta day day ñoom ñaar dóor mu daanu sama na fa am parce que bu ñu xeexee xeexu mbedd kenn mën na ku ci recevoir sa pour morom di nga daanu ñoom ñaar ñëpp nag moo tax lamba ju garaaw yi noonu. papa kontaan naa ci yow. <laughs> jërëjëf maa ngi leen di ñaanal yéen yàlla sàmm leen yëkkati leen wone leen parce que euh, euh, kiy wax euh, di feeñ ku ko seetaan rek la bëgg te am na ñoo xam ne nag seetaan par force la ji nga télévision bi Equivox bëri ko ci mbartal la puus mu dem puusul mu dem parce que boo gisee la nga boo gisee loo xam ne mosoo ko gis wala nga dégg loo xam ne mosoo ko dégg waaye foo jaar bu fu ne moom ngay jàpp kon yal na leen yàlla defal jàmm ay ndaw ngeen yu soog a dugg àdduna te it damay wax ne lépp loo boolee euh, ki wax amul solo da nga koy booleeg jëf nom bon et heureux dans la solitude de la nature les cours le rend malheureux ou méchant donc seul le silence est grand tout d'autre est faiblesse yal na leen yàlla jàppale